ayca mbokk yi mu ngi noonu di leen nii bu baax a baax am mbégte ak kontaan rek saa su nekk nit yi na ngeen di ànd ak ñun eh, ci seen eh, site bii di Thiès Info ci xibaar xibaaru Sénégal eh, ci seen émission bii di li xew Sénégal di nuyu ñu nekk ci biir réew mi waaye itam di nuyu bu baax a baax ñu nekk ci biti réew ni ñu koy ànd ak yéen saa saa su nekk rek nii la di leen nuyu yéen ñi itam ñu nekk ci bureau yi bu ngeen xëyee dugg Thiès Info ngir xam li xew ci réew mi mbokk yi ku ne xam Euh, diggante fan yi dégg nañu coowal gaal coowal eh, mbëkk mi ba tey ret muy takar naasa di woy di bëri fii ci biir réewum Sénégal mais nag eh, foofee ca diwaanu caara yi caaro yi fayeen daf ci am benn famille boo nga xamante ni daanaka ñoom seeni ay doom yu bëri bëri duñoo réer ci gaal ndax nag ñoom gaal lañ jëloon mais ba tey kenn amul ci ñoom benn information mais ñoom le 9 octobre 2023 lañ demoon mais problème bi moo di nee ñoom fépp fu ñu dem dañ leen wax ne kat seen doom yi ñoom deewuñu dafa am fu ñu leen denc ba sax am na yu ci feeñ yenn saa yi ñuy gis ay signe def vie nga xamante ni ñooñee ñu ngi koy def waaye ba tey mënuñu am ak ñoom benn communication ñu déglu kenn seen waajur yi daal di wax situation bi nga xamante ni ñu ngi koy dund. wala gis na gaal gi wala dégg na ko fenn. déedéet moom kay kenn gisul gaal. kenn nag déggul leen fenn kenn gisul leen fenn ndax temps yaa daal am na benn vidéo bu nu fu envoyé koo xam ne da doon recherche di xool moom mënu envoyé vidéo bi sax ne dafa am benn maire boo xam ne joolaa la mu dëkk Casamance ñu daal ñuy envoyé photo bi ne maire bi moom ci documentaire yi la gis rek photo boobu daan ne moom kii doomam la te mu ngi tëmbe woon kayaar le 9 octobre. même ko say njaboot. waaw jour boobu léegi nag ñun tamit ñuy gën a dundee yaakaar rek xalaat nañu fi nekk. ñoom ñu ngi fa te gaal gi nee nañ Tunisie la teer te sama rakk bu ma bokkal nday ak baay mu ngi dëkk Kër Ndiaye Lo dama faa dem sa boobu ñuy soog a dem ba mu am weer mu ne ma man de Yacine ma ne ko ah, mu dafa am numéro bu may oo te xaw ma ko ma ne ko ban numéro la mu ne ma numéro bi ma ko xoolee Tunisie la ma ne ko Tunisie yow numéro Tunisie lan la war a mu ne ma su ma nee alu nag dañuy nopp léegi ñu def ka ñaari yoon benn bi mu oo ko mu dem jëndi crédit moom oote jotul ñu oowaat ko ñu ne bi muy wax ak moom nag kooku ay naar lay wax ak moom xamul lu muy wax. waaw léegi bi mu wax ka ma ne ka waa loolu te moom xam nga léegi numéro yi yow boo ma joxee sa numéro foog xooluma whatsapp bi rek du ma xàmmee sa numéro bu dee moom moom la numéro am dafa yàgg pour man daal ñoom xale yi fi jógee jàpp na moom lañ gën a jàpp numéro moo tax bi bi mu waxee loolu tamit ñu ñuy dundee yaakaar ne ba tey tamit mën naa nekk xale yi mm. benn bi sax nee naa ko xam nga nooy def buñ la ootee da ngay jënd crédit boo ootee nga ne allo ndax ñoom mën nañoo sàcc téléphone di oote te duñ bëgg a wax ñu leen di xam ma ne boo ootee da nga naa allo daraame muy sama rakk bu góor bi boo nee daraame rek nekk ngir yàlla na ngeen wax benn kàddu rek ñun ñu xam fi ngeen ne ñu xam loolu moom envoyé na ko wax ka ba tey tamit ootewul fan yi rek ah, semaine bi rek oo na ma ne ma man de ñooñu oowaat nan ma ma ne ko ah ñu ko woowante ne ma waa sama mag bu jigéen bi nga xam ne moom tamit doom da si bopp tam dégg fi nekk Espagne moom it numéro am tamit la mel dafa yàgg. nee fan yee dañoo tëdd ba guddi numéro bi daal di sonné mu jël mu coupé mu xëy jox doomam bu jigéen bi nekk xoolal ma numéro bi numéro la kooku numéro nekk numéro bi Tunisie la ñoo lay ka te nee na ñooñu masuñu kaa oo masuñu kaa bi moom mu oote fi di ka wax ñu oo sama rakk bu jigéen bi laaj ka man numéro bi lay o ak numéro bi nekk même numéro bi. Mhm. mais ñoom bu ñu wootee duñu wax. duñu wax waaye nekkul tamit parce que ñoom ñu si bëri bu ñu leen jàppee ñoom bu ñu wootee dañuy wax seen famille yi nañ leen envoyé xaalis. waaw loolu yëpp mën naa nekk waaye ñoom waxuñu. ne bu ñu waxoon sax ne dañ leen di envoyé xaalis tamit ñu jéem a xool nu ñuy def envoyé leen xaalis waaye tamit waxuñu dañuy ootere boo alo mm. ñoom di nga dégg muy dir waaye da lay wóor na ñoom mënuñoo tontu. ay jëf mu ngi noonu mu nekk mbir bu doy bi nga xamante ni eh, xew na foofee ci diwaanu caaro eh, yi fay fayeen mais li ci gën a doy moo di famille lëmb la daanaka ñu bokk ndeeg bàyyi ay cousin am na sax ay jigéen yu nga xamante ne ñoo ngi ci mais ñoom daal dañoo xëy rek ne dañuy jël gaal xam nga foofu dafay nekk ay famille yu nga xamante ni daanaka ay nappkat lañu ay mool la ñuy nekk ñoom dañuy xëy bëgg maanaam jël yoonu euh, géej gi dem foofee ci diwaan Espagne mais nag ñoom gaal gi da leen di sànni yenn saay sax am na ñoo ñu nga xamante ni ñoom Maroc la leen di sànni ñi yenn saay ndox mi sànni leen bëkk Tunisie mais problème bi moo di dañ ciy gis ay cas yu nga xamante ni itam xaw na tey xel ndax yenn saay euh, ñu bëree bëri ci ay migrants sénégalais bu ñëwee Maroc ñu leen tëj def leen ay prisonniers yaa ngi dégg ñu jël leen def leen ay jaam extra extra bëri na fi wala nag ñoom instant bi ñu tiit mais itam beneen mbir bu ci am moo di ñoom li ñu jàpp rek moom moo di Tunisie foofu la seen ñooñu nekk ndax am na sax ku wax ci beneen élément ne ñoom yenn saa yi nit da leen di woo du wax dara mais nee na ñoom bi ñu seetloo xam nga itam ku ne xam na Sénégal dafa dal di am lii di seen propre euh, maanaam tradition maamul yi nit ñi yenn saa yi dañ dañ leen a jox bopp bu baax baax. war naa def ci am koo xamante ni rawatina kii ki doon wax nee na moom dafa dem ci ay maamam seetlu laaj ñu ne ko kat eh, xale yi deewuñu mais xale yi dañuy ne tey ci benn place moom nag loolu sax moom moo waral sax xelam xaw a tuuti kii nag ni mu gisee ab numéro bu nga xamante ni daanaka boo xoolee ci diwaan Tunisie lay woote ñu jàpp ni daal ñoom ndax numéro boobu woo ko maanaam woo na rakkam waaye itam woo na beneen jabaru magam bi nga xamante ni ñoom ñëpp daal benn famille lañ te itam benn numéro boobu moo leen di woo ñoom ñaar ñëpp kon daal ñoom li ñu jàpp rek moom moo di eh, jamono bii eh, dañoo téye seen ay doom eh, otage kon nag beneen bi itam moo di Sénégal am na ay consul am na ay consul yu nekk ci biir adduna bi dëkk bu nekk boo xoolee par exemple am na fa ay représentants sénégalais kon nag jot na itam ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo di kilifay dëkk bi kilifay réew mi bàyyi xel loolu na jëwriñ bi ñu dénk wàllum biti réew fexe jokkoo ak ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo nekk foofee ca bitim réew di eh, fa teewal Sénégal daal di visiter prison yi daal di visiter itam yenn mbir yi daal def seen enquête ba xool ce que amul ay yu nga xamante ni dañu leen téye tënk leen fenn ngir laaj xaalis bu dee dañu leen tëj itam bu dee dañuy nag xaalis rek yaakaar naa loolu itam nguur Sénégal war na ko mën a génnee daal di leen koy joxel ndax nag eh, foo xamante ni tey jii kat say doomu réew lañu dañoo demoon ngir ñoo ngi nag itam war nañu mën a dimbali. beneen bi itam am ñu bëri ñu daal di commenter ci bi mi daal di wax ne kat boo xoolee euh, souvent ndaw yu bëree bari ñu ngi génn réew mi di dem li li ko waral moom moo di euh, pression sociale ndax tey jii ndaw day dëkk ak ndeyam ak baayam bëgg bëgg joxe dépense bëgg xam nga bu la sa yaay laaj nga jox ko sa soxna laaj nga jox ko alors que yow tey ji yow li nga am akus néew mënul fa soxla yëpp te nag ñu bëree bari yenn saa dañuy yeewu du ñu am dërëm gis seeni ay waajur nekk ci. situation gi seen éwagir soxla waral nag yenn saa yi ñoom itam ñu bëgg a maanaam jaayante bëgg a lu ngir duggal loole maanaam ci seen bopp bu mën a ñàkkante andi ngir jox seen ay wajur waaye daal jàpp leen daal foofee ca caaro yi fa fayeen daal am na ab famille bu nga xamante ni daanaka eh, le vingt le vingt waaw le vingt neuf octobre lañu koy maanaam lañ koy am ñoom ay xibaar ndax ñoom le neuf octobre lañ fi jóge woon waaye daal. le 9 octobre ba le 29 octobre daan nañu am ci ñoom ay xibaar mais daal boobu ba léegi amuñ ci ñoom benn euh, signe de vie nga xamante ni daal war na mën a tax seen xel daal mu ngi xew foofee ci ci diwaanu Caaro yi mu ñëw rek ci situation bi nga xam ne gis nañ ko réew mi fan mbëkk mi tukkee maanaam euh, ci diwaanu Mbuur ab bato bu fa jóge woon ab gaal daal di dem. ci Espagne juróom-ñeenti nit ñoo ci daal dund ci juróom fekk ci ci ci juróom benn fukki nit yu nga xamante ni ñoom ñëpp daal dañoo demoon ngir dem liggéey yi mu nekk itam mbir mu nga xamante ni daal euh, fës na loolu. acca mbokku yi euh, nii rek lañ koy defee ak yéen ci li nga xamante ni rek moo gën a fës ci biir réewum Sénégal ci ay mbir ñu daal di ñëw ci beneen élément bi ñëwaat. Euh, mbokk yi beneen élément bi moo ci ab mariage bu nga. waaw xam nga mariage moom bu amee ci village yi. rawatina foofee ci diwaanu Vélingara ñëpp a xamante ñëppay ñëw wane seen solidarité ñi andi seen ndimbal xam nga ñi maase toog waxtaan génération bu nekk daal daal di toog saafonte ak sa mbokk sa xarit waxtaani lépp daal loolu nag moom moo tax ba daal ab musiba daal di koy jur ndax ku ne xam ne ni eh, mariage moom xewu bànneex la doo am benn coow tëgg ak fecc rek moo fa war a mën a am mais loolu ci ay werante yu nga xamante ni daal yu sew la yu ñàkk fayda ci mbiru politique moom moo waral benn waay bu ñu wëkki turu daanaka moom sax mën nañoo wax turam ndax itam eh, suñu naataango yi bind nañ ko du eh, manque de respect dara waaye waa ji moom mu ngi wëkki turu gaano gaano moom am koo xamante ni sàmbale wuyoo sàmba mbaalo waaw sàmba mbaalo am saa itam ñeneen ñu koy woowee Samba Balde mais bu mais bu ci mën am daal moom Samba la tudd mais Samba moomee daal di toll ci fukki at ak juróom-ñeent moom ak xaritam bi di gaanu mbiru politique wala daal ñu werante ba dënni jug am na sax ay mag yu fa nekkoon daal di ñëw waxtaan ak ñoom pour calmer leen ñu daal di bàyyi seen werante bi mais ki nga xamante nag moom moo di euh, sàmba kii di Gano dafa daal di mel génn mel ni daal koo xam ne dafa ñibbi ndekete yow moom dem na wuti ak paaka paaka bu ñaw def ko ci jiinam ñoo fekk gars yi toog ñëpp yaakaar ni loolu jeex na mu daal di koy butti ki nga xamante ni moom moo di Samba Mballo gaana daal di eh, butti Samba Mballo paaka mais nag ki saa si rek yuuxu yi commencé sama Samba boobu fekk na moom fi ñu ko jam nekk na parti bu sensible ñi ne nañ sax ci dënn bi la ko jëm mu commencé sotti deret bay bay euh, génne deret ci gémminam au moment où ñoom ñu ngi galoyaabe ñi ne ñaa ngi waxtaan dégg yu xoy ñëpp daw sàmba sax ki ki noonu lañ ko jëlee yóbbu ko hôpital bi gënoon jege village boobu ñu nekk mais même pas cinq minutes ñu ñëwaat kat ne sàmba moomu daal dinay génn àdduna mu nekk nag nouvelle bi nga xamante ni transformé eh, mariage boobee en décès wala sax ay yenn dégâts am na fa ndax am na sax ñu fa doon eh, daanu yéesi ñi di doy ñi di yuuxu wala nag après nag ñu daal di woo police daal di ñëw ak gendarmerie yëpp sax am na ñu ne police moo ñëw ñu ne gendarmerie moo ñëw ndaxam nga yenn sax ay dëkk àll yi moom. Eh, dafay am gendarmerie waaye comme mosuñu ay naataanga moom yenn saa ñoom ñoom ñoo joxee mu xibaar yi dañoo wax rek takk der yi kon nag mën na nekk police mën na nekk gendarmerie mais bu ñu ñëwee daal daal di def l'enquête xool naka la mbir mi demee laaj eh, ana ndaw yi fa nekkoon fekkee mbir mi ñoo ñu expliqué leen ko waral sax ñooñu après dal di joxoñ baaraam ki nga xamante ni rek moom moo ko daal di jam muy gaano noonu nag la takk der yi fexe daal ba def ab enquête ki saa daal di teg loxo xale bu góor boobee di di gaano daal di koy jébbal yoon waaye itam nag ñoo ngi ñi nga xamante sax moom mii nga xamante ni moom moo di Samba Mballo daanaka am na lu toll ci fukki at ak juróom te sax moom itam mbokk la ci xale bu jigéen bi nga xamante ni moom moo sëy woon maanaam cousin am la te Samba itam nekk na ku nga xamante ni waajuram moom dong la am bi bi bi mbiru amee saa itam nemmeeku nañ ci saa jàppante diggante ñaari famille yi muy famille ki nga xamante ni moom moo daal di jëm ak ki ñu jëm yëpp. ñu nekk nag benn mbokk bu jegee bu nga xamante ni daanaka eh, ñoom ñoo ñëwoon daje daje foofu noonu mu nekk nag mbir mu nga xamante ni nee nañ ab werante daal moom moo ko daal di jur ba sabab ki nga xamante ni moom mooy Samba di daw këru Jakarta ñu daal koy faat moom nag itam ci te ci yenn seede yi ñu bëri ci ay seen ay jegeñaal daal ne moom mi eh, ku amoon pas-pas la waaye itam ku amoon eh, relation bu rafet la diggante moom mi ak ak ay mbokkam. Euh, mbokk yi beneen cas bu mujj bi nag cas bu doy waar la cas bi mi ngi xewee ci diwaanu Mbour foofule sax tribunal bu grande instance bu Mbour moom moo daal di àtte mbir moomu noonu ndax nag waa ji moom daanaka sax boo xoolee ay atam soriwul moom moo nekkoon liggéeyam moom dafay fexe daal moom bu yeewoo dal di joxe jakartaam jox ko koo xamante ni daal kenn la ci ay nit yu nga xamante ni dañ koy liggéeyal léegi nag ñooñu bu ñu demee dañ koy maanaam fexe ba moom dafa amoon koo xamante ni daal ab jakarta maanaam la moom moo ko jox moto jakarta pour mu daal di koy fexe di ko liggéeyal léegi kooku daal bu ko liggéeyalee moom daf ko daal di verser deux mille francs par ñoom ñaar chaque ngoon dañuy dajee mu jox ko versement am moom waa ji itam daal di jël motoom denc ba suba joxaat ko booy bi ñu dëkkee noonu. liggéey bi daal di continuer di dox mais moom waa ji dafa euh, doon daal nekk nit koo xamante ni moom dafay mbëboo gendarme yenn saay sax mu dem dugg ci biir dëkk bi am ñu mu teg dil xam nga rek génne carte professionnelle am ndekete yooyu moom dafa am carte professionnelle boo xam ne daf ko foroon mais carte boobu boroom sax si la sant mais moom mu ngi tudd Moussa Fall mu nekk nag ñaari mbir yu bokkul te moom ab ASP la. donte sax bokk na ci millier boobu mais moom ab ASP la mais dafa dem ba nànd lii di doxalinu gars yi ni ñuy doxee na ñuy solo na ñuy waxee nu ñuy gérer yenn kaay yooyu yëpp nag sa waay dem ba daal di koy peeg dem ba appliquer ko mokkal ko mais benn bis dafa jot booy bi nga xamante ni moo koy daal di verser jamonoy dix-huit daal di koy woon ne ko euh, chef patron man kat sama moto lañ koo jàpp mu ngi police sàngam. waa ji tamit ne ko donc garaaw dinaa ko gérer dinaa dem ak sama collègue yi ñu ma ko delloo ndax moom même booy bi nga xamante ni moo ko doon liggéeyal sax booy bi moom daal ab gendarme bu mag la ko jàppee woon sax xam nga booy nag yenn saa yi eh, boo nekkee takk der wala boo nekkee nit ko xamante ne comme ni ñuy tegee dil yeneen nit ñi yow duñ la ko teg dil booy bi jàpp daal moom eh, comme que loolu toq na daal ci li nga xamante ni moom moo di loxo waa ji dina fexe ba. waa ji dem jëli ko bu ko defee moom itam mu mën a wéyandiwaat li nga xamante ni moom moo di liggéeyam mais par malchance waa ji fi mu njëkk a feeñalee boppam moo di dafa ñëw de daal daal di toj quoi mel ni un grand gendarme ne ko chef ça va daal di tóojal waa ji waa ji itam doog jug xam nga rek comme alkaate bu gisee mënoo alkaate mi daal nuyu saafonte mu ne ko man la chef nangam chef Cissé xam nga gendarme la mais sama boy bi dama ko joxoon Jakarta et cetera et cetera waxtaan ak moom ne ko mais il paraît que fii la nekk mais problème moo di policier bi ko doon déglu dafa mel ni daal nit la koo xamante ni dafa jékki-jékki rek xelam daal di dem ci naxaate yi nga xamante ni daal yenn gars yi dañ koy naxee eh, nit ñi. mel ni daal un un gendarme xam nga rek utiliser seen jargon chef xam nga ay maître ak yooyu noonu quoi mais nag à moom mi nga xamante ni moom mooy policier bi daal ne ko may ma xool sa carte waa ji itam teg dil ndax moom carte boobu mu forcé daal daf cee def photo am daal moom la xam itam ni naan pexe moom bis bi nga koy def la bis bi ñu lay xam ak bis bi ñu lay waa ji jox ko photo bi mu foroon maanaam carte professionnelle bi bi mu foroon da def ci photo mel ni nag daf ko def ba nga xamante ni da doo ko saa gaaw gaaw a xàmmee mais bi policier bi tiimee carte professionnelle bi xam ni daal lii dañ ko daal di monter maanaam dafa dindi photo jàmbur def ci photo am ci la ko ne an sa carte mu ne ko noonu dama ko fàtte nëkk nëkkal daal di koy yuuxu waa gi nar a daw ah, en am na itam ñi ne ñu taxawoon ci porte bi daal di koy teg loxo moom bi nga xamante ni faux gendarme la gars yi pare ko gis ci moom ab carte boo nga xamante ni carte professionnelle la mais moom waa ji ab ASP la ASP la quoi moom kon yàgg na ci seen biir yàgg naa xam mbootu gars yi extra extra bi gars yi xamee nag ab ab ab ASP la daal di koy mettre en garde à vue def enquête ci moom ba xam ne daal nekkee moom même bu dul sax li mu ñëw ñoom yàgg naa nag ay nit ci biir euh, foofee di mbuur dem ci ay nit daal di leen chantage jàpp seen oto lekk seen xaalis ñi mu nangu seen moto ndekete yow moom daal ci yooyu la euh, nekkoon moom waa ji gars yi def enquete defee la ko au parquet moom nag la ñu attaqué tribunal bu mbuur démb mais mais bi attaqué bi jàkkaarloo ak moom daal di koy laaj. dafa dal di nangu ni que moom kat liñ koy toppee moom moo ko daal di def liñ koy toppee moom moo ko daal di def il a avoué ne moom moo ko def mais jéggalu ndax nee na nag jamono bu tar moo taxoon ñu daal di koy xam nga rek euh, duggal ci yenn mbux bi moom sax dem ba ni euh, carte boobee mu fort moom moo ko daal di dimbali ci yu bëri bëri mais taxul ni nga nag moom ab ASP la ndax itam yenn saa yi opération amee dara ànd gars yi finalement daal procureur jàpp ni moom miy waaj yi dafay def li ñuy naan usurpation de fonction. ndax bëri na ñu nga xamante ni foofee ci mbuur ak yeneen gox goxaat yi dañuy sol tenue mel ni gendarme am seen médaille yooyu noonu dox dégagé am nga ñàng ñàngulu des fois am ay tenues yu bëree bëri nag te ñoom nag dañuy lëkkaloo ak ñi nga xam ni sax yenn saa dañuy ñëwal ay tenues yu mel noonu daal lii mbaxane yépp moom daal attekat bi daal di koy xool xam ni kat kii ay pexem jubul ndax nag buñ ko bàyyee nii amaana sax mën na cee nax ay nit yu bëree bëri waroon nag attekat bi daal daal di koy daan. ñetti weeru kaso yu nga xamante ni du ko tëdd maanaam moom daal waajangook di nekk nag nit ko nga xamante ni daal xaw naa rey waa Mbuur moom bàyyiwul dawal katu kalandoo yi bàyyiwul dawal katu jakartaay mu nekk nag mbir mu nga xamante ne di ko gaa yi yéegee sax ñoom dañoo daal di yéemu ndax ñoom dañ naan gis waa ji daal di ñëw dégagé wu des mu wàcc oto des fois mu taxaw ci circulation bi des fois karaay oto dem ci oto alu Dakar yi daal leen nag lekk seen xaalis ñëw toogaat mais daal finalement ayca mi ngi noonu daal mbokk yi lii moo gënoon fës tey ci xibaar yi rek di leen jox di daje suba ak jàmm ci li seen émission bii di li xew biir Sénégal jërëjëf ci ànd bi ànd ak yéen mbokk yi ba suba ak jàmm.